rek waaye li sii di wax it moom it ci xeetu dégginam la te dégg sii di ñëpp dégg nañ ko ndax moom la tontoo ni mu déggee noonu la tontoo mhm. maanaam moom négativement la ko jëlee waaw ni mu déggee daal la tontoo non parce que Sidy Diop wax na ko si biir moom laa la wax nee na man à chaque fois ay nitam bu ñëwee sama seen dama leen di sagal dama mooy li ma wax mais du ma wàccee mooy li ma la mooy li ma la wax démb fii bi nga naan ma Sidy fu mu toll di ko woy voilà te la parce que ku baax la ku gore la ku am grandeur la te it sii di nit ku nite la nga ne ma wari ni daal fa yu jaaxal nga ma dangaa tax ma la gisoo samay bëñ bañ naa ko ba weexul ne la siin siin laa di sëtub maam mindis te man nekkuma koo xamante ni damay dëkk Fatick di ragal ndax man Mendes mooy sama maam may siin siin di séeréer pur kon ragal ragal bokkul sax ci sama jëmm xam nga démb kon wax naa la lii mu leer mu doon ñaar man léegi damaa comprendreul demut njàpp foofu dafa jar a taxaw ah ndax njàpp demoon na demati demati problème oto ñëw njàpp dem laaj oto ñaari wax am. Mhm. muy da doon wax Siré sama papa. dem mu taxaw ba muy wax mu ne dama am ñaari papa. ñaari papa te benn papa la amoon. mu ne Sidi Diop ak Waly Seck. Waly ne ko yéen ñaar ñëpp maay seen. papa yaa ngi déglu. Mhm. kon léegi man dama xamoon ñoom fi nekk doyu leen wala satisfaire leen. moom la rakk kii di Sidi Diop. wala ñàkk fulla la. wala ñàkk jom la wala ñàkk personnalité wala bëgg a tambaambaalu la est-ce que li nga wax moo yi nga wax yëpp nekkul maanaam si biir maanaam moo nga wax yëpp dañ jàpp ragal féete day xañe wërsëg c'est la même chose la kii di rakk si rajo bi wax dégg nga ko mooy maanaam ojo bu njëkk génn nit dangay ngay am féete nit da ngay am féete ñeme sa féete ñeme ki nga bëgg maanaam di dund ki nga bëgg ci cofeel di ko sagoo it ci foo nekk ci cofeel néew ma kenn bu mu baali waali sekk waali sekk sax ku ko baaliwoo na la leer ni baaliwoo fii senegal ci dëkk bi néew ma kenn bu baali Kéba Sekk néew ma bu kenn baali Sidi Diop néew ma bu kenn baali El Hadj Keita Jeylaani néew ma bu kenn baali Ngoone Njaay géwélam ca payor ca lëmbal ga ku ci nekk am nga koy gundaandaat soxool dañ la koy nangul par force par la force waaye nit da ngay diiñ benn ma ne la Sidi Diop bàyyi Waly Seck la ci lan Sidi am na lu mën te Waly mënu ko kon loolu Waly bu ci fekkee Sidi Sidi bàyyi ma Waly sekk mën na itamit lu Sidi mënul kon Sidi bu ci fekkee ki nga xamante ni mooy Wally Seck Wally Seck baayam la. est-ce nga bëgg wax lu lu maanaam rakk ji wax euh, maanaam nee bu fekkee maanaam si wàllu wëy parce que laaj nañ ko ndax est-ce bi muy wax waxewu ko maanaam si wàllu euh, musique dafa jàpp ni moom moo dàq wëy Sidy foofu ba mu ne ko man sa baay laa. jàppewu ma ko ci wàllu musique ndax attends attends maa ngi ñëw. Mhm. parce que bu fekkee maanaam si wàllu maanaam ay maanaam ak yooyu Sidy dafa la ko tonto ne ko carrément man. munoo nekk sama baay du ma fisu kenn benn baay laa am mais te bu kii rakk yi tontu wax nañ ko xool nee ne ko est-ce que maanaam du wax si wàllu musique mu ni bu fekkee musique kese kese kese la ñu jël ay instrument ay tama yëpp teg fële maanaam indi voix teg maanaam lii bool ak kuddu kese ne wàllu yuuxul Sidy Diop yuuxul Sidy maanaam day yëy waale <laughs> comme ni ko gars di waxee la comme d'habitude. moom loolu la. loolu la waxi supporter la rek. jàppoo loolu. waxi supporter la. mais Sénégal yu ba leen jàpp Sidi Diop moo dàq woy Waly yow Sidi fan la dàqee woy Waly Seck boo ko dàqoon woy doon centre du peuple. non c'est pas la même chose. Sidi am na lu am ci woy Waly amu ko. muy lan. Waly am na lu mu am ci woy amu ko buñ werante buñ nëbbante. waaw mais ñàkk nëbbante. yaa ngi yaa ngi yaa kon loolu kon kon moom dama da maanaam wax jooju. Mm-hmm. maanaam dañ ko doon wax feneen mu safe mais du moom moo koy moo koy condition ndax mosuñ tëgg ay kuddu dégg Waly mu woy Mhm. teg neen guitare kenn joué wu ci di ci fon yi Wally sekk di ci woy lu neex. waaw bañ koy TikTok. waaw ah, te gisaguñ Sidy def ko. yaa ngi benn yoon xaw ma si quoi. même bu ko deful même bu ko nee bu dee kudd yooyu xëy na ñoom mos neen di essayer kudd Sidy di ci woy mu neex kon du foofu Wally sekk dàq ko woy ci réew mi daa amut yombul li bu ma kenn indi lu sundur nag ndax kooku dañ koy ber. du ko ñuy boole fii. non on maanaam pour ñuy seetaan rek. Mhm. bu kenn ne yu kooku des koy ber yu su a am ak wéykat yi. Mhm. comme football comme football ngay tudd maanaam maanaam bokkul. Mhm. moom loolu bu ko waxee waxi supporter la ak waxi ki nga bëgg tey dañ ko koy nangul. parce que nag kuy xalam di ca jaayu barke ba yaay borom te nag mbokk ndey koy jur te nit de ko bandum deret. am na plein droit wax loolu mais Sidi Diop dàq looy Wally Seck ko waay nañu waxante dëgg ëpp koy moyen loolu moom xam nañu merci kon loolu damay jàpp ni waxi supporter la waaye man ci kàddu gi jëm bàyyi la ak bàyyi ku ci nekk man maa ni sa bàyyi morom nga ndax ku ci nekk am nga loo mun te sa morom munu ko te nit ki mm-hmm. sa morom lu mu mun te munoo ko boo ñëw mu jàngal la ci teete la te ku la teete sa bàyyi mm-hmm. mais dañuy wax en cadre général buy wax cadre général tamit bu ñu xool performance yi Wally Seck di def année 2023 bi bu doon joxe ay ak ay meilleur clip ak meilleur artiste si bokk. tey Sidy. maa maa ngi ñëw parce que tey jii boo xoolee Wally Seck génn na fi album génn ay clip yu nga xam ne nii ak ay diw yu nga xam ne nii tukkal na maanaam àdduna alors que Sidy 2023 bi dafa mel ni dafa nalaw carrément si côté boobu est-ce que tamit loolu moo tax à chaque fois comparaison bi nga xam ne ñoo ngi koy def si diggante Wally Sénégal yi sax léegi dañ koy fàtte dañ naa sax bu mos a comparé fu mu toll nii Wally ak Sidy Diop est-ce que c'est ça est-ce que Sidy Diop ren na xawul nalaw tuuti tuuti. yaaram buñ leen comparé itamit. Mhm. dañu sonal seen bopp rek. lu leer laa lay wax parce que ku nekk dafa am sànq maa ngi lay wax lu leer ku ci nekk dafa am nooy déroulé di dem xëy na programme Wally Seck loolu la. yow Sidi ñaata tukki la war a tukki nii nii Sidi daanaka léegi mu génn dëkk bi. moo moo ngi préparé Zénith je crois à mois de juin incha allah ma ne la mu génn dëkk bi Sidi Diop barki Dembo Ndiaye gone gi nekk Mali invité ko. Mhm. muy Sidiki ñi fi nekk te amuñ ko bëri na te njëkk ko fi. kon kii Sidi Diop. du mhm. benn booy xale du ñeexum ñebbe de. Sidy du ñeexum ñebe kenn de. moo ngi préparé single album. ak ma ne la Sidy du ñeexum ñebe kenn Sidy daa mën a wéy de. Mm-hmm. maa ngi leen daa mën a wéy de. piir Sidy daa mën aada. mën cosaan li jaaxal dañ leen bëgg a weer du ngeen am xaalis bu ngeen. <laughs> dafa mel ni am mën fii mën fee. waaw loolu yàllaa ko dogal. dëgg la. ku ci euh, nekk dafa am loo mën. allo. ma ne. man ne bu ngeen di wax loolu seen plateau yi da ngeen di jekk saa di bëgg fay ñi ñi <laughs> wax nga dëgg da la déggul woon déedéet ñu ngi lay bu baax a baax maa ngi leen fay baa yaa ngi si jàmm ñu ngi sant sëñ Joab baax alhamdulilah euh, Rach bu fekkee mën nga ñu yokkal tuuti volume ñu ngi mën a dégg délégué bu baax a baax mm-hmm. alors délégué démb yaa ngi yaa ngi doon wax yaa ngi amoon li nga xam ne ni da ko bëggoon leeral si affaire bi nga xam ne ni xewoon na fi taxee mooy accident mbay bi euh, ñu bëri jàppoon di mbay lu ko téewoon hôpital mooy nekkoon manque de moyen mm-hmm. alors Sénégal yi bëri yaakaar mais yow mel ni mm-hmm. am nga beneen version bi nga xam ni nii mu nga bëgg jotee lan la woon waaw mbay xam nga ñu man la àndaloon dem xel ko mm-hmm. bi ñuy dëpp ci yoon bi la accident bi am waaw sappo ñëw yóbbu ko ci hôpital Bambey bi hôpital bi amuñu ay rajo amuñu yooyu noonu mm-hmm. man maa jël may dugg sama oto dawal ko ba Dakar mm-hmm. Philippe Senghor laa njëkke bi ma demee Philippe Senghor ñu ni ñoom mënuñu koo jël mm-hmm. ma dem hôpital bi nekk Grand Yoff dëgg bi ma demee foofu ma fay leen ñu rajo ñu gis ne daa damm ci pooj waaye ñoom nee nañ amuñu place pour opérer duñ ko mën a jël Derek est-ce que nga yokk voix bi tuuti rek pour ñu gën la mën a dégg bu baax. waaw waaw waaw da léegi ñoom ñu ne duñ ko mën a jël bu doon damm damm boo xam dañ koy tabax rek dañ ko tabax nii mais léegi dafa laaj opéré. Mhm. ci laa ko indee mu nekk tey fii Dantec xaw ma